الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الكفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالد wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanu arrahim jazallahu an alqari xayra aljaza yal nañ borom subhanahu wa taala fekk imam gën gi fay euh, mbokk yi du ñu guddal incha allah dañuy jox al ustaas mu commencé li nga xam ne mooy waxtaan wi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 naudu billahi min annar ixwani alkiram ngi màggal allah tabaraka wa taala di ko gërëm di ko bàkk di ñaan borom bi jéggal ñu suñuy njuumte waaye jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc boole noo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci àjjanaam joojee di firdaws lu ko yomb la nañ ko yàlla defal nuy julli tey sëlmal ci muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahaabaam ak taabiina lahu bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi jotaay bi tey mi ngi tënku ci fadlul infaaqi fi sabilillah wa asaruhu fil mujtama muy ngëneel yi nekk ci dépenser sa am-am ci yoonu yàlla maanaam jullit bu nekk góorgóorlu ba li muy am mu koy def ci yoonu yàlla bépp moyen lépp lu mu am loolu ban jeexital la mën a def ci ab société ban jeexital la mën a indil ab société mbokk yi bu nu waxee al infaaq fi sabilillah mooy nit ki alal bi mu am ana lan la ciy génnee jëme ko ci yoonu yàlla ndax xam ngeen ni ñun ñépp dañoo am benn durée bu déterminant boo xam ni fa la ñuy yem waaye danoo amit mission boo xam ni kenn ku nekk ci ñun war na ko remplir te mission boobu mooy ñëw ci kaw suuf tabax ko defar ko nan lañ ko mën a tabaxee ñu ngi ko mën a tabaxee ci jaamu yàlla topp yàlla wéetal ko waaye góor góorlu ba bépp bunt yiw ñu jéem ca teg suñu loxo loola buñ ci taxawee fekk borom bi gërëmal ñu boppam kon lanuy xaar ëllëg ca yowmal qiyaam mooy àjjana yàlla nañ ko yàlla defal allah subhanahu wa dafa bind jaam ñi tollalewu leen yemalewu leen ci wërsëg yemuñ ci ci ay at yemuñ ci ci xam-xam yemuñ ci ci kàttan yemuñ ci ci bindiin yemuñ ci bu dee ci bindiin xeetu doomu aadama ñaar la séddalikoo muy góor ak jigéen ñoom ñaar kenn mënta dem ngir àdduna jag bàyyi moroomam kon la shakka ñoom ñaar ñooy ànd pour mën a tabax ab société islamique boo xam ni dana mën a taxaw ci yoonu yàlla kon góor ak jigéen ñoom ñooy ànd waaye yemuñu it nag ci ay at ñii danañu dund gudd fan lool ñii danañu dund gàtt fan lool am ñoo xam ni ca digg ba la yem beneen biit ci wàllu am amit tollowuñ ci ñii yàlla na leen a jox ñu bari le ba mu ne gàññ ñii mu jox leen lu yem ñi ëpp mu xañ leen loolu zalika xikmatullah maanaam keemaanug yàlla la gu mu def ci kaw suuf boo xoolee ñiy dund ñi ñàkk ñoo ëpp ñi am lan moo tax pour mu équilibrer ñi am bu ñu bari woon lool déséquilibre lay indi ndax xam ngeen ni am-am moom dafa yomba soppi doomu aadama inna al insana la yatgha an ra'ahu staghna borom bi nee na doomu aadama ku yomba bew la ñu ne ko lu tax mu ne su amee su amee mbagg mi day yëkkatiku su amee dootul nangoo wax su amee dootul nangoo bo def boppam nit maanaam day bëgg a dépasser boppam nit jàpp ni moom rek moom moo mën moo tax borom bi jël ñi ëpp ci société bi néewal leen doole loolu nag xikma bi tax mu def ko moom borom bi moom rek moom moo ko xam waaye it nag ci bindin yemuñu ñii dañoo njool ñii gàtt ñii am kàttan ñii néew kàttan borom bi boole ñu ñun ñépp nag ginnaaw bu mu ñu bindee def ci ñun ay miskin ñoo xam ni dañuy am tuuti néewle lool def ci ñun ay fuqara ñoo xam ni dañuy am lu xaw a jege dund waaye du ko jeexal def ci suñu biir ñoo xam ni nag al agniya lañu ñooñu dañoo am borom bi subhaanahu wa taala ginnaaw bi mu defee loolu nag yónni ñu ñun ñépp ne ñu na ngeen tabax kaw suuf te bu leen ko yàq na ngeen ko tabax te bu leen ko yàq wala tufsidu fil ardi baada islaahiha borom bi nee na góorgóorlu leen ba bu leen yàq kaw suuf ginnaaw bi ko yàlla defaree kon nag li nuy defaree kaw suuf mooy ñun ñépp ay mbokk lañu bi ñu bokkee aadama rek lañu nekk ay mbokk mbokk yi ñu doon mooy ñun ñépp ñoo bokk benn baay ñun ñoo bokk benn yaay waaye ñoo bokk benn maam ñun ñépp suñu baay mooy aadama muy abuna aadama kenn ku nekk kuy doomu aadama rek ci aadama nga soqee ko kon ay mbokk lañu déjà kon mbokk gi sax na ay doomi ndey lañ ndax njaa Hawa moom moo ñu meññ waaye it nag sunu maam mooy kan mooy suuf ñun ñépp sunu askan ak sunu maam moom mooy suuf ndax aadama ci suuf lañu ko bind te ginnaaw bindam ci lañu ñu génnee Hawa ba ñu nit ñu mel nii ñu mel tey beneen bi mbokk yi kaw suuf yàlla dafa am yu mu bëgg ni kaw suuf soxla nañ ko mooy soxla nañu njub soxla nañu ragal yàlla waaye soxla nañu dund bu dal dund bu dal nag mënta am lu dul ragal yàlla am ragal yàlla mënta am lu dul njub am kon ñaar yi ñooy ànd njub moom mooy dimbale ragal yàlla ngir ragal yàlla mën a def liggéeyam su loolu amee nag yàlla sëmbërtal ci sunu biir lu ñuy tudde yërmande yërmande loolu lu néew lañ ci yàlla jox ba far tuddee ko mbokk mbokk ni ko yàlla tuddee mooy rahim rahim mooy yërmande kon ñun ñépp ay mbokk lañ su yërmande amee rek dimbalante day yomb su ma la yërëmee dinaa la mën a dimbale soo ma yërëmee dig ma mën a dimbale loolu nag moo nekkul ci les animo amul ci animo yi dañuy lekkante dañuy lorante dañuy gaañante ñun nit jamono bu ñu demee nag ba jël yoon boobu mooy gaañante lorante su boobaa dañuy dund dund animaux yi moo tax nga dégg yenn nit ñi di wax ni jamono yi léegi yii géej la xam ngeen dundinu géej jën moom bu mën sa morom rek lekk te loolu la islaam doon bañ dafa bëggoon ñun ñépp ñu dox ci yërmande kon borom bi sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci suuratu Ibrahim ne ko qul li ibaadiya alladina aamanu yuqiimu alsolata wa yunfiquu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya wa yunfiquu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniyatan min qabli an yatiya yawmun laa bay'un fiih wala xilaal borom bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko waxal jaam ñi ñi gëm nag la yàllay wax ne ko waxal jaam ñi gëm ne leen nanuy taxawal julli yuqiimu sola kon julli dafa bëri lu muy tabax ci aw nit waaye dafay defar ab société ndax ci biir julli yërmande mi ngi ci ci biir julli bëggante mi ngi ci ci biir julli solidarité mi ngi ci ci biir julli jàppante mi ngi ci ci biir julli seetante mi ngi ci ci biir julli yërëmante mi ngi ci kon nag alladina amanu yuqiimu sola waxal ñi gëm yàlla ñuy taxawal julli ginnaaw taxawal julli nag mu ne wa yunfiqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya ne yow yonent bi waxal nag nit ñi ne leen li leen yàlla wërsëgal nañ ci joxe moo xam lu nëbbu la wala lu feeñ kon jamono bi nga xamee ni yàlla dafa sàkku ci ñun wërsëg daf ñoo jox ba pare ne ñun na ñu nit nañu joxe ndax moom yàlla moom moo ñu jox comme jox nañu wala mu am ñu mu jox ñi mu jox nag def leen a sant ñuy dépenser seen alal ci yoonu yàlla borom bi ne li tax dépenser sa alal baax mooy bis yow yowmal qiyaam bu jaam ñépp taxawee keroog amatul jaay amatul jënd amatul borom alal amatul borom xam-xam amatul borom kàttan amatul borom mën-mën ñun ñépp ñoo yem taxaw ci kanamu borom bi ngir mu war ñoo atte comme daf ñoo war a atte nag te keroog amul jaay amul jë